الله لا إله إلا الله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 waaw sëñ Cheikh daf ne woon. waaw na sëñ ñu leeral la liggéey yi ni mu demee. waaw waaw lenn lu ci nga xam ko. waaw gën ñu ngay xool rek. waaw maanaam dinañ la wax li mu doon. ak leneen li ci des ci war a nësër. waaw loolu lépp ñu leeralal la ko. baax na Fall. Cheikh Moustapha waaw sëñ Moustapha waaw waaw. waaw wax. sëñ Saliou Fall sëñ Saliou waaw monsieur Moussa Faye Fall Faye Fall waa kay Fall jërëjëf Fall waaw waaw Fall ay jàngukaay lay doon waaw lii lii lépp ay kër dëkkuwaay dëkkuwaay waaw ñu jàng ak ñu jàngale fi loolu ñaar tax yi bu ci ne daa am loolu sama ne bëggoon boo ci tolloo ñu xamal li ñaari barab yi la boole. fi ñuy jànge ak kii jàngal ni jàng fa mu yëg. ak bi nga xam ne ko tàmbali nag. te àggagul te ne ne yi mel lay mel. noonu lay mel mu rugg ah. la France. doon naa ko naa ko yem. Ah. na dem na dem ñu dee ñu leeral ko.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 Amadou Fall Fardiaye góor ñu doo seeni morom la ilaha illallah Fall Maam Sera Fall gore nga la ilaha illallah Fall la ilaha illallah la ilaha illallah Fall la ilaha illallah la ilaha illallah Fall rabbana la ilaha illallah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 fànn suuf si mu jëm nii jàll na ko nii du du ndimbale jàll na ko ci diggante bi rek. mel ni mi ngi wax ak déglu leen tuuti ñu déglu leen tuuti. nee na li mu lay li mu lay digal. nga taxaw liggéey bi li ci lépp. nga taxaw liggéey bi li ci lépp. waaw waaw li lépp lu ci manqué. waaw nga wax ko ko. waaw nee loolu mooy bëgg ci yow. waaw waaw waaw. liggéey bi lépp tamit ma ngi sa loxo. waaw baax na baax na incha allah. waaw baax na baax na. baax na nee na. waaw liggéey bi lépp ma ci sa loxo. waaw. liggéey bi nee na lépp ma ngi sa loxo. waaw baax na lu ci manqué nga wax ko ko mu def. waaw baax na waaw leer na la lay leeral. waaw waaw waaw. jërëjëf. mais sama yaay déglu loolu. nu ngi leen ñaan. ak ah, ah, ah, waaw. mbooloo mi ñu dégloo tuuti waaw. wala ko rek. man ci loxo sëñ Fall. joxoon sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue ngi ndigal. ni ko liggéey bi lépp a ngi sa li ci des lépp digal naa la nga taxawu ko. lu ci manqué nag ma ko wax. waaye mu woo sëñ Fallou mu jige ko. sëñ Cheikh ni sëñ fallu maa yow ñëw bokk liggéey bi fa nga daan taxaw na fa taxaw. loolu daan def na ko def. ànd koog sama rakk yëpp ak mbooloo njabootu Cheikh Ibrahima Fall bi waaye Fall ñëpp teew na ñëpp a ngi nii toog sëñ Cheikh Fall Cheikh Tokki ngi nii sëñ Cheikh Tokki ngi nii gis nga xam Fall dégg na ndigal li sëñ na dégg na ndigal li nee na fas ko bu baax ñaanal ba nee na nga ñaanal leen ba ñu ko rek ni bëggee ko bëgg rek nu ma ne ko noonu nee na loolu rek lan lan lan lay ñaan incha allah nee na fas yéene nañ ko bu baax a baax nee na noo ko bëgg rek dinañ ko di def incha allah jërëjëf Fall yaatal wax jataay waxtaane ko boobu mu yaatu rek waaw mu gën a yaatu waaw loolu liggéey bi ñëw de ci loxol dañu am di faal mu sëñ Mor Mbette xëy na moom fas yéene liggéey bi na ko borom bëggee mu defe ko nii waa jëlal liggéey bépp nag ci loxol suñu seen njaay mbeng muy léppam di jëwriñam muy itam fas yéene ànd ak suñu seen njaay mbeng ci liggéey ñu mu ko jox fas yéene mu ko bëggee rek yëpp waaw ñu wax seen xol yëpp waaw dëgg dëgg na ndigal sëñ bi dama ko sëriñ baa ngi leen di nuyu. di nuyu njabootam gi teew fi yëpp. jiital sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng nga xam mooy jëwriñ jotaay bi. di nuyu njaboot gi nekk ci gannaawam yépp di nuyu bu baax sëriñ seex Cokki. njaboot ji genn rek la sëriñ bi nag li doon solo solo jéego yi waaw ñëpp rek doon solo jéego yi sëriñ bi moo doon ni mu waxoon sëriñ bi rek ne dafa bëggoon a ñëw si liggéey bi ngir nemmiku ko ak it fedd li ndigal li nga xam ne naka jëkk joxe woon na ko ba ñëpp déggoon ko ak ñaan ci liggéey bi rek ni mu ko bëggee rek liggéey bi bu ñu ko dooree mu ag rek ci seeni loxo da ngeen mën ko jëbël lolo doon sababu mu mu tanon bis bi tay waxon ni nan nan fi dajé ak njabot gi ngir euh, yoy yi nga xamné tuddu nañ ko waye sëriñ moom xolam sedd na bu baax lu jitu ci njabot gi loolu mu waxit naka jekk lool rek lay wax loolu mo xon loolu mo wax sëriñ Cheikh Ndiaye da koy wax ne ko liggéey baa ngi noonu si sa loxo lépp lu si war rek nga def ko lépp lu si lu si desit ko yëg Serigne Cheikh moom it wëlbatiku Serigne Fallou wax ko yow yaa ngi sunu kanam liggéey baa ngi noonu naka jëkkit nag ñoom rek ñoo ko doon taxaw ndax liggéey bi ba mu dooree si loxoy Serigne Cheikh jëmb ba fii mu ne mhm. euh, ñoom rek ñoo fi nekk di ko taxaw ñoom ñuy toog rek lii fi nekk lépp yéen ñi fi toog rek yéen a ko taxaw mm-hmm. ba mu àgg si ndigalu Serigne Cheikh jëm yàlla suñu borom dolli nu ko yërmal ak leer mm-hmm. kon nag ñi nga xam ne bu demee ba Serigne bi ñëw feddliwaat ndigal loolee mm-hmm. mooy kàddu yam waxoon sa njëlbeen ne li mu fi fekkoon Serigne Cheikh jëmm tegoon ko fi di ko doxal amu si lu muy yokk amu si lu muy wàññi mm-hmm. loolee Serigne fa Serigne Cheikh jëmm yemoon rek mm-hmm. dafay tàmbalee rek ñu yom jëm kaw mm-hmm. waaye amul dara lu mu siy soppi loolooy sababu ndigal li mu di ko li saa su ne ak di ko yeesal si njaboot bi ñu xam ne loolu moom moom la sëriñ bi wax te moom la bëgg. waaw ndigal li sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ndiaye. ndigal laa ngi si loxoom. baat baa ngi si loxoom. mu wëlbatiku nag def jëwriñam ji. tegaat ko moom it ci loxo wet ga mu newoon. muy naka jëkk nag muy wetu jëwriñ. mu jiite liggéey bi. kon suñu xel dal na bu baax faal. mu ngi sant ñu fi teew ñëpp rek. ci turu sëriñ bi. kaddu yi nag xam naa dina xaw a lëj waaye. xam naa ñëpp xamee ko noonu rek. waaw ndax daal sëñ bi daal loolu rek mooy ak bëggam. liggéey bi nag. waaw liggéey bi nag. ne ko fii mu toll. waaw sëñ bi nee na fii mu toll. dara dara manqué wu nee na dara manqué wu ci. ciment ngi fi. neena na ciment ngi fi. feer a ngi fi feer a ngi fi. xeer a ngi fi xeer a ngi fi. ñi koy liggéey ñu ngi fi. ñi koy liggéey ñu ngi fi. waaw kon bu ñu demee ba tool si war koo laaj rek. kon bu ñu demee ba tool si war koo laaj. daañu ko laaj daanu ko laaj. waaye lu ko mën a def mi ngi fi. waaye lu ko mën a mi ngi fi. alhamdulilah waaw jërëjëf mi ngi fi alhamdulilah. waaw yéen yéen a a laaj. waaw Serigne leeral ne ne liggéey bii nee na ciment ngi fi fer ngi fi béton ngi fi ay dénk ngi fi mboolem li ñuy yittewoo ngir ngir liggéey bi nee lépp a ngi fi teew nit ñi koy liggéey ngi fi waaw nee na moom mu koy ci daatal naa a la ma la waxoon démb rek waaw waaw waaw waaw waaw la waxoon rek ñëwoon naa wax ko Serigne bi waaw sëñ sëñ Moussa mii wa waxoon na ma ko ba ma jot li woon ko sëriñ bi xamal que nu ko liggéey ba dara manqué fa ndax da nga maa yónni woon ci moom ne ma ne ne ne doon nemmiku ne liggéey bi lan la aajowoo ngir ngir njalbeen gi ngir ngir li ñu ko war a tàmbaliwaat lu liggéey bi aajowoo ngir nga def ko ma demal la ci sëriñ Moussa mii ne ko sëriñ bi de moo ma yónni ndax da doon nemmiku liggéey bi lu mu aajowoo ngir ngir ngir ngir jàpp gannaaw jàpp nañ bis lu mu aajowoo ñu war ko wut mu jiitu ji fa nga xam ne mënta ñàkk sëriñ Moussa xamal ma ne ma liggéey ba dem mboolem la nu aajowoo ma nga fa ndax waxoon na ma ni ma lu tolloog juróom-ñeenti téeméeri bëri ko ci ciment mi ngi fi ne woon na ma fer baa ngi fi ne woon na ma béton baa ngi fi ne woon na ma dénk yaa ngi fi mhm. mu yi koy liggéey ñi ngi fi ndigal rek la ñuy déglu waxoon ma ni waxtu wuñ sa tollee la ñuy soxla si lu sew lu mënta ñàkk bu nu sa daanu ko daanu ko wax waxtu wuñ demee ba liggéey bi toll fu nu soxlaa daraat danañ fexe sëriñ bi yëpp loolu loolu la woon Fall waaw loolu moom waxoon naa ko sëñ bi. kanamu njëkk waaw Mourtala Ndiaye. waaw Mourtala Ndiaye. kon nag ci ndigalul Cheikh Modou Moustapha. kon ci ndigalul Cheikh Modou Moustapha. Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda. moom Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda. di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. moo teew fii tey ci liggéey bi. moo teew fii tey ci liggéey bi. di yeesalaat ndigalul Serigne Mountakha Mbacké lii. di yeesalaat ndigalul Serigne Mountakha Mbacké lii. di ko jottali nag. di ko jottali nag. mboolem ku mu bokkal Serigne Fall. mboolem ku mu bokkal maam Serigne ak noo ci moom rek. ak noo ci moom rek. ñuy ay rakam. ñuy ay rakam. ñi ay doomam ñi ay doomam ñi ay taalibeem ñi wëllëre yi ñi wëllëre yi ñi am di jàmm yi ñi am di jàmm yi ñi nekk ci fukki régions yi ak ñeent ñi nekk ci fukki régions yi ak ñeent ak ñi nekk ci li ñuy wax extérieur waa bitim réew ak ñi nekk extérieur waa bitim réew sëriñ baa ngi leen di jottali ndigal lii sëriñ baa ngi leen di jottali ndigal li di leen xamal ne jëlaat na ndigal li di leen xamal ne jëlaat na ndigal li fas ko yéenee ànd ak yéen fas ko yéenee ànd ak yéen kon lu ci waay man kon lu ci waay man na ko si daal di def na ko si daal di def te bañ koo xeeb ku am ciment ku am ciment ku am fer ku am fer ku am xeer ku am xeer. ku am suuf ku am suuf. ku am sa doole ku am sa doole. na lépp maase. na lépp maase. ñëw wuy si ko. ñëw wuy si ko. ànd moom ci liggéey bi ànd ak moom ci liggéey bi. kon ko jot na ndigal li. gannaaw jot na ndigal li. te fas ko yéene bàyyi ko bàyyi te agut. mbaa ndigal la ko fi jëlewaat rek. rek. waaye fas na ko yéene tàmbali àllarba ji ñu seenu. waaye fas nañ ko yéene tàmbali àllarba ji ñu seenu. di ñaar fukki fan ak ñaar. di ñaar fukki fan ak ñaar. si weeru décembre wi ñu ne. kon nag fu murid nekk. kon nag fu am koy yëgal. sëñ baa ngi la koy yëgal. na ñëpp maase teew si. na ñëpp maase teew te bu ñu teewee. te bu ñu teewee. buñ fi jógee jógee te mukk. te du daa àgg. te du daa àgg. mbaa ndigal la leen fiy mbaa ndigal la leen fiy jëlee. sëriñ bi nee ndigal laa noonu. sëriñ bi nee ndigal laa noonu. da si loxol si loxol sëñ mu teg ko ci rakkam yi mu bokkal liggéey bi ñëpp. mu teg ko si loxol rakkam yi mu bokkal liggéey bi yëpp. ak ñi mu bokkal Seera Faal ñëpp. mu bokkal maam kon ndigal laa ngi noonu jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall bi kon ñaanal dellu mu ne sëñ mu ne ndax sëñ Sall sëñ Sall bisimilah sëñ Sall bisimilah waaw bokk sëñ bi ñëw na ndax li nga xamante ne waaw nag waa Kër Sëñ bi ñëw de. waaw sëriñ bi nee na. ay kàddu yu jëm ci sëriñ bi. waaw. nee na li mu àndee woon ak sëriñ Bachir Fall. mu ànd ak ki mu nekkal Cheikh Fall. mu ànd ko ak ki mu nekkal Cheikh Fall. ba agsi tey jii. ba agsi tey nee na loolu sa lay jataay bi du teew. nee na jataay bi du teew. ma ne lii ma ne lii. du ñàkk a teew. du ñàkk a teew. ma ne lii ma ne lii. liggéey bi Cheikh Rafal nekk daal fu liggéey bi Cheikh Rafal nekk daal am naa pasteefu am naa pasteefu nekk ak ànd ak Serigne Mbacke Fall ànd ak Serigne Mbacke Fall ak mbooloom ak lu nu mën a jëf ak lu nu mën a jëf teg taxaw fa taxaw fa ba keram ñu yewee jërëjëf Fall laaju ma kaddu man nee na laajul kaddu ci ki ma mag ci ki ko mag laaju ma kaddu laajul kaddu ci ki ma ndaw ci ki ko ndaw ki nga xam ne doom la ki nga xam ne doom la laajul kaddu ci kenn loolu nga sëñ bi soxla Albert yow topp seen ginnaaw topp naa seen ginnaaw lu ngeen santaane maa ngi waaw na topp na seen ginnaaw lu la la rek bisimilah Fall na ñëpp maasa nangu ñaan na ñëpp maasa nangu ñaan amin Fall amin Fall amin rek